ci gis ne mën na dékku mbir mi ci candidat yi yi bëgg a remplacer. déedéet maanaam man suñu ñun dañoo am projet de société tuddee ko le réalisme africain. Hmm. moo tax ñuy woote coalition du siècle ku ci ñëw ànd ak ñun ku ci ñëw ànd ceeg ñun. moom yaay remplacer Macky. donc euh, mais ci Macky Sall ki muy tànn. Hmm. pour mu remplacer Macky il faut mu ñëw ànd ak yéen ci. coalition du siècle coalition daal moom. Ah. ñun moom la ñuy woote. Hmm. waaw moom lañuy woote. Macky moom Macky moom duma ko conseiller pour mu pour mu tànn kenn. bu mu tànn kenn. du ko ko conseiller man. mu def lan na. mais <laughs> bu mu def lan. Hmm. na def liggéeyam rek. na def liggéeyam te mais constitution daf ko tànk dafa war a jeexal deux mille vingt quatre. waaw mais bu dee jeexal deux mille vingt quatre nag. Ah. léegi Abdou Diouf bi mu jeexalee demul. bàyyi na parti bi Ousmane Tanor rek est-ce que bi mu demee gagné na. Ah. sëñ yaa ngi wax de. maa ngi wax kay bañ a wax. <laughs> waaw Tanor la fi bàyyi. mais est-ce que Tanor dina dina donc jàpp nga ne Macky. risque man daal sans man kenn du gagné. ci gàttal nga ne Macky risque la mu bàyyi fi nit bu fi bàyyee kooku kooku du gagné. Macky man li ma ko bëggal xam nga Macky dama ko bëgg fan ko ba nga xam ni. Mhm. Eh, bu ma sañoon bu ma sañoon fii buy jeexal. Hmm? entre court moyen et long terme. dañuy mhm. accélérer projet bi nga xamante ni bii moo ni may nu nu egg ci Afrique nekk benn état bu uni mu nekk mu nekk mu njëkk a nekk le président des États-Unis d'Afrique comprendre. Mhm. Macky man loolu laa ko yéene te wax naa ko ko itam léegi nag. Euh, ma yàlla moom bu naree dogal dara rek fi mu koy jaarale faw ñooñu ñu inspiré leen waaw les conditions nécessaires luy tax loolu mën a am moo tax ma ne la bu ma sañoon man élection du am dañuy régler yi ñuy régler yépp ñu doog a def élection waaw bu ko defee ay centaines et des centaines yi ñu denc ci kaso yi te xajuñu fa ñu wut foo xamante ni bii ñu wut foo xamante ni bi ay champs lay doon. Hmm. ñu yi waaw ñu yóbbu leen fa. ñu yóbbu leen fa ñu mën a noyyi mën a kii comprendre bu laajee sax waaw bu ñu defee ay réformes ñëpp ñu libéré leen baal ñëpp. Hmm. xam nga réew mi il faut ñu woon adduna bi ni Sénégal dañoo am koo xam ne amul fenn mooy ki ñëwoon ne afawtu andil daa turan waaw sama noonu yëpp baal naa.